dal leen jàmm grève bu jeex beneen tàmbali njàng mi caatum ren ji coonoy neen ndongo yi jàngu ñu seen programme jeexul te boo moytuwul du jeex réew mi quotidien ne l'école bi at bu nekk mu yëngu ndax yi grève waaye nag bu ren bi moom moo gën a tar ak ay syndicat yu dogu réew mi quotidien ne donte sax nguur gi def na ay jéego ci ndampaayu yi mu jëlee ci 65 000 yóbbu ko ba 85 000 taxul jàngalekat yi weer ngànnaay yi yokk ci nag tànk jàmm yi ci xalif général des Tidiane Serigne Baye Mansour nekk di dox ma dox tàbbi ci les échos yéenekaay bi ba tey ci wàllu njàng mi ne jàngalekat yi gréew day am na li nguur gi teq ci seeni peyoor diggante 85 000 jàpp 150 000 direction de la solde ne yoonam newul ci loolu ba noppi nag joxoñ baaramu tuuma ministère gi ngànk wàllu njàng meek njàngale mi la cloche daal di sonné ne la crise scolaire de tous les dangers loolaa tax l'observateur ne nguur gi am na lu mu ci namm ngir fànq danger bi yoot l'école bi ci jamono ji ba fii nag jàngalekat yi gréew nañu lu toll ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ba tax na waxtu yi ndongo yi waroon a jàng jànguñu ko gis nay pexe ngir yeggali programme yi moo di yokk année scolaire bi ñii de rattrapage ña ca des ay cours de renforcement ba noppi programme waat lii di examen scolaire yi waaye nag la cloche nee na li nguur gi wax dafa mel ni duggul ci nopp élèves yi bés bu nekk ñu wàcc ci mbedd mi grève di manifester ndax ni jàng la ñu bëgg am sax ñu ci ñoom ñoo xamante ni dañ ciy faral di jëlee ay gaañu gaañu Pierre Ndiaye moom mi saytu wàllu politique économique ya ca ministère gi ñu dénk wàllu koom-koom réew mi ci biir source a mu ne gis na ñetti pexe yoo xamante bu ñu ko defee l'école bi dana a am jàmm benn mu ne nguur gi dafa war a bàyyi yenn dépenses yi nga xamante ni moom la prévoir ngir toppatoo càkkuteefu jàngalekat yi ñaar mu ne na nguur gi ut source bu bees bu attan dépense bu bees boobu le mën na sax taxawal beneen ab impôt bu bees ñetteelu ponk bi nag moom Pierre njaay mu ne bu loolu demee ba sottiwul nguur gi mën na lebi donte sax du li gën ndaxte dafay déséquilibré koom-koomu réew mi lii la Pierre njaay gis nay pexe ngir lijjanti njàng mi ci jamono ji yëf yi nag mel ni lu soof Zahra Iyane ba tax mu ne ci biir yéenekaay bi di enquête politique moo leen tax a jóg Vox Populi ci wàllam jàpp ne Sénégalu tey daal doy na waar ci jamono ji jàngalekat yi fii ñiy yëngu ci wàllu paj taxawee ci wet bi ñoom it ñu ngi ciy gréew loolaa tax yéenekaay bi ne ñaari xal ñoo seq état bi ci jamono ji Sud Quotidien ñetti fanu gréew la ànd gësëm ngànk ci jamono ji L'Observateur ne léegi day doonatul ñaari fan waaye nag ñett le 2 mai bii ñu dëgmal la ñuy tàmbali ñetti fanu gréew yooyu le ba tax nag Vox Populi ne nguur gi ci jamono ji syndicat yi dañ ko tànc ci miir bi ñeneen ñu tànc ci miir bi moo ak loi bi ñeel bi tax ba yendalatuñu fanaanalatuñu fu nekk la ko jégi di joytu loi boobule kalaame nañu ko ca conseil constitutionnel sud quotidien yokk ci ne duñu ca yem ndaxte fas yéene nañu dem cour de justice bu CEDEAO ak cour africaine gi ngànk droit de l'homme El Hadj Iba Barry Camara moom di jàngalekat ca faculté des sciences juridiques ak politique ca université Cheikh Anta Diop bu ndakaaru ne CEDEAO ak cour africaine des droits de l'homme mënuñu weñ loxoy Sénégal ci dara wala boog du doon ci loi bi Momar Thiam xam-xamam màcc ci wàllu koom ne recours yi ku bi jógte lenn ñu ci jublu moo di teg pression nguur gi ay miiri ñing njiital groupe parlementaire ci yéenekaay bi di le quotidien ne ab loi constitutionnelle du conseil constitutionnel moo ko mën a gantal waxatuma nag ab kuréel gu CEDEAO lii la ay miiri ñing sama naataangooy le quotidien ci waxtaan gi mu seq ak ñoom keneen ku seq waxtaan ak beneen yéenekaay di Ahmed Khalifa Niass ci biir yéenekaay bi di le témoin wax na lépp yéenekaay bi ne ayatollah bu Kaolack dindi ñaaw wala boog nga yàq deru jabaram gawoon di yaay Fatou Diagne ba noppi nag moom Ahmed Khalifa Niass yemu ci ndaxte nee na mu takki jabar moo ko gënal muy njaaloo bu demee nag ba jeex mu tàggook moom ma tàggoo sama naataango yi le témoin tàbbi ci biir l'observateur mi xëy fësal jaar-jaaru Ousmane Sonko njiital Pastef ab syndicaliste la woon tey mu ngi ci politique bi Sonko l'observateur ne daa mel ni phénomène bu bees ci langu politique bi ma dikke Niang def na ci moom seede naka noonu it Cheikh Bamba Dièye yéenekaay bi ne Sonko atu xeexam politique lépp l'observateur xëy na ko wax ni ki tey jii ñu wax ci ngan gi nga xamante président bu Cap Vert mu ngi koy amal fii ci Sénégal démb mu nga woon ca assemblée nationale waaye député yi fare ci kujje politique bi ak non inscrits yi dañu ko boycotté laas ne président bu Cap Vert day jox na Sénégal leçon démocratie ci discours am bi démb le soleil yokkal ko ci ne du loolu rek de ndaxte ñeenti accord coopération signé nañu ko diggante Sénégal ak Cap Vert record ne Liverpool nag jaaxle na ci jamono ji ndaxte Sadio Mané dafa gaañu barke demb ci match bi doxoon diggante Liverpool ak AS Roma ñu jeexal ak tiis bi di génn àdduna kii di Habib Faye artiste gitarist bassiste bu Super Étoile ca France la génnee àdduna l'observateur xamal ñu ne corps bi tey ci vingt heures lay yegsi fii ci Dakar levée du corps bi ëllëg la ñu koy amal ci samedi bi bu neuf heures ci suba jotee ca hôpital principal julee ko ca Jumaay El Mansour nekk ca Sicap Rue 10 ba noppi jébbal ko sunu borom ca Yoff liggéeyam dem na ku mënoon a kaf ak ñépp yal na suuf sedd ci kawam